salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki jullit ñi yéen mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Assane Ndiaye Baye Fall moo leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiitee ci nuyoo bi nag ki nga xam ne moo fi nekkal borom Touba muy Sëriñ Muntaxa Basiru di ci topp ki teg ci nuyoo bi ki nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy suñu am ni Modou Mbenda di ci tegaat nag suñu jàmbaar ji suñu yaakaar ji ki nga xam ne tey bis bii tey moo ko waral muy Serigne Cheikh Fall borom ndigal suñu yaakaar tey ak ëllëg lii ñu def lépp jëmmam jee tax ñu di ko def pour yokk yoonu maam wi maam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey ak jaamu yàlla loolu mooy yéene Serigne Cheikh Fall borom ndigal ñu ànd ak moom. ñu Assane Ndiaye Baye Fall ambassadeur universel bu Serigne Cheikh Ndigal Fall. waaw euh, ndaje mi dafa am ay leeral yu ñu bëgg a leeral leeral bi nag li ci njëkk mooy takku saanu borom ndigal faal ak café tuuru taalibe yi café tuuru taalibe yi nag boo ko déggee di leeral lépp li ab taalibe nekk rek ci liggéey ak jaamu yàlla ñu tànn ci nag genn kuréel goo xam ne siñ Cheikh Fall ndigal moo ko créé mu tudd tuuru taalibe yi daara ji ñàkku dara yeete ak defar jikko yi mondial diine ak développement ndax dañoo xool fi àdduna bi toll tey jikko yi yàqu na fi àdduna bi toll tey pan kilifa yàqu na ci réew mi kon jot na tey ñu yeetewaat ak defaraat jikko yi teg ko ci njàngalem sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall di ci leeral nag suñu jàmbaar ji suñu Cheikh Fall borom ndigal nee na jamono saa bu demee ba yàqu boroom pas-pas yi ñoo koy defaraat borom pas-pas yi nag mooy ñi nga xam ni dañuy gëm ngir yàlla mooy ñi nga xam ni dañuy bëgg ngir yàlla mooy ñi nga xam ni dañuy bëgg xam ngir yàlla mooy ñi nga xam ni dañuy jëf ngir yàlla ñii ñooy borom pas-pas ñuy leeral nag fi àdduna toll benn ndaje boo xam ni li ko waral mooy taxawal centre mondial diine ak développement centre mondial bi nag ni ñu ko bëgg a taxawalee dañuy gis fi àdduna toll dans les quatorze régions du ak Afrique dañu bàyyi suñu culture nationale ak suñu culture africain di roy yeneen culture yoo xam ni dañ ko jéggaani léegi nag ñu bëgg indiwaat suñu culture nationale boo xam ne ak suñu culture africain boo xam ne bépp africain boo xam ne roy na ko danga nga jotaat say valeur valeur yooyu nag ñu tànn ci bu ci njëkk mooy éducation de base l'islam modèle talibé bi si topp mooy éducation de base l'islam modèle bay dunde bi si topp mooy éducation de base l'islam modèle élevage local bi si topp mooy éducation de base l'islam modèle métier consommé local bi si topp mooy éducation de base l'islam modèle marché consommé local dañoo xam ne cinq points yi nga xam ne moom lañu tànn mooy li nga xam ni moo boole àdduna bi kenn mënu cee mujj kon nag ñun bu ñuy tudd tudd Sëñ Tuubaa war nañoo xam lan mooy doxal àdduna bi ak lan mooy jëmale àdduna bi kanam ñu formé ci ndaw ñi ñu commencé vingt cinq ans ba quinze ñu commencé quinze ans ba cinquante cinq ans ñu commencé cinquante cinq ans ba soixante quinze ñu ñu fàttaliwaat leen démb ak tey bañ mën a jariñuwaat ci njàngaleem Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, waaw projet bi nag fii ñu nekk tey nag mooy bureau unité benno mondialisation bi douze corps de métier douze corps de métier bi nag ñu xoolaat dëkk bi. ci wàllu set setal manqué na manqué boo xam ni jaaduwut kon war nañee taxawal kuréel goo xam ni tey jii lañ koy lancé mooy kuréel centre set setal maam Cheikh Ibrahima Fall ak kuréelu jigéen ñi ñu tuddee ko centre set setal soxna Jaara Buso ak maam sey na Seynabu Njaay alxames yi nga xam ne mooy jigéen ñi ñi ñu bale ci dëkk bi ñu ànd ak ñoom di leen accompagner ci liggéey bi ci ay matériel ak lépp loo xam ne lu leen di jëmale kanam ci wàllu setal dëkk bi kuréelu maam Seynabou njaay ak soxna Jaaratulaahi dara waralu ko lu dul setal dëkk bi. waaw li ñuy jeex